waa li ñu mën a wax mooy que ne décret bi ku nga xamante ni jànguloo droit sax war nga mën a xam ne décret la boo xamante ni teguwul si yoon teguwul si yoon pour ñetti anam pour parce que ñoom dañu ne dañuy mettre en œuvre li nga xamante ni mooy disposition article 135 ak article 140 code général des collectivités locales disposition yooyu lu muy wax mooy que ne maire bu fekkente ni dañ ko condamné en matière correctionnelle wala criminelle euh, si yenn fee yi président de la république am na pouvoir mu jël décret mu révoqué ko mais encore une fois dafa am condition yoo xam ne loi moom la wax dañuy renvoyer président de la république ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy conseiller si loi organique bi nga xamante ni moom moo organiser cour suprême loi bi li mu wax dafa leer mooy que ne si délai recours cour suprême mais également bu fekkente ni dafa am recours bu ñu def devant la cour suprême décision bi ñuy attaqué dafa nekk décision boo xamante ni jàppandeegul du décision bu définitive or aujourd'hui cette décision ne peut pas être définitive parce que encore une fois ñu ngi ci délai yi pour def recours xanaa sax bu doon jël mu bàyyi ba délai recours yi jeex parce que dañu condamné Khalifa Ababacar Sall démb devant la cour d'appel muy décision boo xamante ni dañ koy contester yoon nañu am ngeen six jours pour def seen pourvoi en cassation ñun pareeguñ sax pour def suñu pourvoi en cassation ñu jël une décision ñuy laajte lan moo fi waral yàkkamti boobu yàkkamti bi nga xamante ni moom lañ def première instance def ko appel tey ñu jël ko pour révoquer Khalifa Ababacar Sall en tout cas bu fekkente ni yoon rek lañ doxal mooy que ni décision bi ñoragul matagul fañ ko war a jotee eggaguñ fa parce que Khalifa Ababacar Sall kenn condamné gu ko définitivement. Cour CEDEAO waxoon na ni présomption waaw waxatuñ sax waxaguñ sax euh, waxi présomption d'innocence mooy dossier euh, décret bi nga xamante ni dañ ko jël ndax jël nañ ko fa ñu ko waroon jëlee doon nañ ko comprendre bu fekkente ni cour d'appel dafa condamné. cour suprême dàq recours Khalifa Ababacar Sall à part de ce moment dañu naan décision bi définitive na tey aujourd'hui dañuy jàpp que ne décision bi ñoragul lu war ñuy parax paraxe ba di ko jël encore une fois dañ ciy profito di lancer un appel à l'endroit du président de la République parce que mënuñu comprendre que en tant que président de la république da nga war a jël auteur par rapport ak li am bu fekkente ni moom dafa am problème personnel politique ak Khalifa Ababacar Sall lii yoon mooy mu régler ko ak moom politiquement warul serviru prérogative yi nga xam ne constitution daf ko jox président de la république warul serviru institution république yi warul serviru justice pour combattre un adversaire politique loolu muy loo xamante ni vraiment ñun dañ koy regretter. waa gis nga Khalifa que naka la yëgee nouvelle bi naka la ko jàppee. waa Khalifa Sall ñi ko xam ni mu nekkee woon ci mairie bi. ak euh, bi muy dugg prison premier jour bi même sérénité bi même confiance bi la am mais di lancer un appel à tous les Sénégalais pour ñu faire face à ce régime de Macky Macky Sall parce que encore une fois moom nekk biir prison ak nekk si biti moom la yemale de toute façon li mu wax mooy que ne combat bi nga xam ne mu ngi koy mëne dara mënu ko ci delloo ginnaaw que mu nekk maire que mu bañ a nekk maire dafay continuer combat waaw c'est vrai que décision bi dinañ ko attaquer en justice mais dañu jàpp que décision bii nii ñu jël pour révocation xalifa daal lenn la rek diversion ñun dafa am loo xamante ni moo ñu gën a yiteel mooy condamnation bi nga xamante ni def nañ ko démb xalifa Ababacar Sall dinañ ko am nañ délai six jours pour def déclaration de pourvoi buñ ci paree nag ñu doog a jublu si lii parce que jàpp nañ que ne lii dañ ñuy divertir buñ ci paree dinañ ci jublu ala kuli ali ñaari décision yëpp dinañ ko attaqué fi nga xamante ni fa la